dañuy liggéey duñ ci lekk duñ ci naan duñ ci tëdd fu nooy am ñoo xam ne ñoom di leen bëggewuñ ci seen bopp mais nit ñi lañu ñaanee seen alal mm-hmm. Mm-hmm. dafa am nit koo xam ne moom dina defal boppam lépp mm-hmm. waaye alalam yow loo takk takk ci moom yow doo doo ci jariñ parce que moom bëggewul ci boppam mais bëgg na ci nit ñi ñaan na nit ñi loolu nag moo gën a bon voilà surtout loolu moo gën a bon parce que loolu soxor la ñaan la te gis nga gis nga mant parfois way jur dina jël doomam bu jigéen ca dëkk ba indi ko Dakar pour mu liggéey da fekk indi ko pour mu liggéey da ko indi ngir rawale ko. waaw ngir rawale ko. rawale ko ngir gàcce ba mu am ca dëkk ba bañ na mu feeñ. waaw waaw. bu ko defee nag bu ñëwee fii mu jiin ko benn Dakar waa ñu ne kon fii la. Hmm, fii la waaw fii la yàqoo. ga la yàqoo kër ga la yàqoo woon. bu ko defee bu ñu nee ba diggu muur bi see du nekk gàcce dañ naan ndeysaan ndeysaan moom lañ ko defoon coow loolu. ko defee. Hmm, hmm, blanchir na xelu 30 ans. effectivement ba dama koy wax tout le temps ci sama élèves xam ne ñooy jàng leen bu njëkk ba ñun waa Dakar ñun lañ daan dal ñun yóbbu dëkk ba pour ñu jàngi pour ñu yar pour ñu éduquer ñu pour ñu tarbier ñu waaye tey bu ñu demee ba nga xamante ni léegi waa dëkk ba ka tolloon ci jàng tolloon ci ñu yar ko moom la ñuy indiwaat fii ci ndakaaru muy taxawaalu ci mbedd ndakaaru yi mais kon bu baax xal bul xaqaay am na. vraiment. Mm-hmm. waaw xal xam nga Cheikhouna Tidiane laajoon nañ ko. mu ne mujj jamono nitu yàlla yi dañuy làqatu. Mm-hmm. ñu ci bari léegi ci kër yu rafet yi la ñuy dëkk takk ay soxna yu rafet nga jàpp ne duñu ay nitu yàlla fekk nañ ko def ngir làqatu. Mm-hmm. mbir mi day changé. Mm-hmm. léegi nitu yàlla ay costume la ñu sol ak ay gara cravate mm-hmm. nekk ci biir nit ñi nga jàppale ak ah ñu ay boy temps wala te fekk na guddi gi lu ñuy zikkar ak lu ñuy jubóog yàlla yoo xamoo ko mm-hmm. moo tax parfois nga indi sa xale bu jigéen teg ko ci sa loxo rakk bu jigéen da rakk bu jigéen mënta sax gérer ay doomam yu jigéen ndax Dakar dafa rëbb kenn amatu temps wu yar xale yu jigéen yi boo waaw dëkk kër këri la. dëkk utukaay la. Mhm. utukaay la kenn amul temps wu yar. xoolal ma ko location bi cher la dund bi cher la. ah soo demee uti ko doo ko matale. doo ko matale te parfois it waa dëkk ba duñ comprendre loolu bu ñuy ñëw sax léeg-léeg duñ la tàggu. Mm. dañuy ñëw ànd ak seen ñetti doom wala ñaari doom ñëw rek ne allo yegg si naa. puufaan sa kaw. comprendre kër gi bëri wut néeg léegi yow nga am problème. Mhm. nooy def jël kii demal ca saal ba génn sa jëkkër léeg-léeg mu fanaan ak nga fanaan ak sa rakk bu jigéen sa jëkkër waaw. waaw da ciy am faaw léeg-léeg comprendre maanaam di dundin bi bokkutut cas yu mel nii nag bu amee pour man muy procureur wala enquête moo xam gendarmerie moo ko yor wala mhm. euh, kii police mhm. li ñu war a def mooy sa cosaan la mhm. cosaan la mooy xale bu góor bi nga xamante ni moom la ndaw si ne ñu indi ko. ñaareelu patron patron bu njëkk bi. ñu indi ko. teg patron wu ñetteel bi. ñoom ñetti ñëpp ñu enquête leen xale bi. te gën naan sax ku ne liberté 6 moom bu lu feexoon ba tey ko loxo. waaw enquêteurs yi aussi xale bu jigéen bi ku mu jiñ xam na fi mu dëkk. <laughs> waaw ka dëkk ba xam nañ ko. Mm-hmm. ki liberté 6 xam nañ ko. su ñu ko jiitaloon ba ci kër ga jàpp kooku jàpp léegi mbir yi feeñ. léegi mbir yi feeñ. te lii du fi lu bees. mantu mm-hmm. waaw xas gor. manam xaste alalu gor la lu ci ëpp te bari na ku nekk rebeus nak nee jàllale nañ ko wallahi alazim la wut laalewut wut usman ibn Affan ñetteelu khalifa bi yeneen ci yàlla Muhammad lañ ko tuumaal ba tax ñu ray ko wut ca taqewu ca xoolal loolu faat nañ ko fat nañ ko nii kéro bañ koy fat deret ji dafa wax deret nissan mo ko fekk fas ak fi ko mu laaw ñëw ba ci suuratul baqara ba ca fa sayakfiikuhumu llaahu dara ji keroog dafa wax keroog la ñu door a dégg ki dara ji wax ne xutti la usmaanun mazluman rey nañ usmaan ci tooñaange yàlla tey boobu àq nattu keroog deret moo ko moo ko moo ko moo ko moo ko seede yenente yàlla muhammad soxnaam Aïcha bañ ko tuumaalee pour wane ne parfois am na tuuma yoo xam ne kenn mënu laa setal yàlla rek moo la mën a setal yenente bi maqaama bi mu am ak daraja bi mu am ak ni muy déyanteeg yàlla keroog dafa ñaaw njortu si suñu yaay Aïcha ne ko demal sa kër papa. Mm-hmm. Aïcha nekk na fa un mois nee na benn guddi bu nekk day mel fukki guddi ci man. Mm-hmm. mantulaay xam nga ñaata aaya la yàlla wàcce pour setal suñ yaay Aïcha. Mm-hmm. pour wane ne setal góor ak a jafe. léegi benn aaya doyoon na. fukki aaya ak juróom-ñaar 17 aaya la yàlla wàcce. pour setal suñu yaay Aïcha. benn aaya waxuma la benn article waxuma la mais 17 versets la yàlla wàcce. pour rien que rek ne ki liñ ko dom tumal ci safwan bu deug mista ànd ca xamna nafiqi naa bon ku hmm. bax dañu bëgg lu bon dal ci kawam bañ commencé koo siiwal bëgg melni yow mais xoolal hmm, bëgg morom allahu akbar kérok ba aaya wàcce hmm. abubakar ne ko demal sant yenent bi mu ne ko man aisha ne ko man duma sant yeenent bi ndax yeenent bi setaluma bu doon mom kessalam angi fi yalla moma setal lay sant allahu akbar yàlla wàcc aay soo demee ci suuratu nuur mooy suuraat hmm. hmm. vingt quatre aay vingt trois jàpp aay vingt yëg nga ne gor bu ñu la tuumaalee yu mel nii boo demee ba set hmm. li gën ci yow mooy nga baale jëlale waaw jàll ci leneen jàll ci leneen Aboubacar keroog ba tuuma bi egsee ci doomam ku ñuy wax mista Aboubacar moo ko daan dundal mais naka tam noonu Aboubacar la léeg-léeg nga yor noonu sa biir kër. di ko dundal nga jàpp ne kii mooy sama soppi. di ko mm-hmm. dundal subaa ngoon guddeeg bëccëg. Mm-hmm. keroog mistax ñu doon siiwal mbir mi ci la bokk. keroog Abubakar dafa waat ci alquran waat ci yàlla ne. Mm-hmm. mistax du ma ko dundalati bàyyi naa ko àdduna ak alaxira mais keroog ba yàlla wàccee 17 aaya setal su yaay Aïcha ba ñu àdduna yëpp yëg ne Aïcha set na wecc wecc yàlla dafa ne ah Abubakar. bul waatati. ne miskin yii. ak muhaajiruun yi nga xam ne ay miskin leen dañoo néew doole nga leen doon dundal mhm. tuuma bi ñu tuumaal sa doom nga mer leen ba ba tax nga ba ko kafaaraal sa ngi li mooy wooral ñetti fan mhm. danga nga continuer di leen dundal na nga mhm. baale na nga jéggale pour wane ne carrément am na loo xamante ne bu dalee nit ki lu mu métti métti métti baaleel jéggaleel cër la la yokk moom la yàlla wax ci alquran wala yaatali ulul fadl minkum wa saada an yutu ulul qurbe wal masaakin wal muhajirin fi sabilillahi wal yafu wal yasfu ala tuhibun an yaxfira allahu lakum wala xafurahim yàlla wax abubakar ne xanaa bëggoon ñu jéggal la mu ne ko ah kay mu ne ku dul jéggale kon jéggalal mistax ak donte lim def lu garaaw gis gis gis gis biñ ci gis bi ci amaat sax moo di bu bu bu bu yàlla seetalutoon Aïcha la Ababacar di jàpp mer mais comme que set na léegi foojaa da ngay bàyyi sa xol day féex mais beneen côté boo ko libéré boo ko bañee dundal léegi ci lay nekkee ci loolu koy loolu ci lay féexee mais boo ko ci kër gi di ko dundalaatal gàcc rey nga ko moo tax toujours bu la yàlla setale rek mais mën ngaa jéggale mais yàgg baax yag dafa bax motax gak gak tuuma sa bu yag koy foot gak gak tuuma sa bu yag koy foot sa bu yag amerique yu bëri mën naa yu bëri mën parce que bëri nak ay ñoo xamna ngi leen di dundal ñu nekk sa kër mais nonu privé dafa mu bëri lool mm. yàlla ci yalla musal nonu privé motax non noonu nit tuumaa lañ ko baxay ko ñi tuuma lañ ko dugg leen kaso ñii tuumaa lañ ba nangam ba sank leen amna ñu dem ñewutuñu yene natu la lo wara jaar ci yow nga xamna di def lu baax di dimbal nit motax ba far sa jëkkër di ci kasso moo tax toujours nag foofu noonu lu jar a bàyyi xel mooy li nga wax sànq ak soxna si nit ki comme que médecin moo dem bane ne la. surtout ba xam na ne âge xale bii xale bi ni mel. warta toll maam moom bu nekkee sax mi ngi tëdd warta warta àgg fii. warta àgg fii ndax ku naan 13 ans 14 ans 15 ans. gis ko mu mel noo xam ne daanaka moog yaayam ma nuróo wala nangam ak nangam ñun la delloo ko mais bëgg lu baax moo tax yu bëri lu ñu tu yu bëri mbaax gu bëri ëllëg mën na laa jural leneen surtout fii Dakar. xale yi tàngal uuf ak sama séeréeg biisoog mhm. tooñ ak kaf ak bokk leen fenn ndakaaru ngeen xëy tase foo ñu ngay def bañ naan dafa bon te bonoone da ngay rawale sa bopp ndax mhm. ndakaaru moo mel noonu mhm. dëgg xëy tase la location ñu boole bu nekkee am na dëkk yoo xam ah am na dëkk yoo xam sax mën nañ nekk ay mbokk ay mbokk ah. mantu nit dina jaamu yàlla ba génn àddina taxaw di réclamer ay teeyaabam yàlla ne ko amoo fi dara lu tax mu ne da ngaa mu sax xas ku set wecc te yenent bi nee na Husayfatu bnu Yamaani moo génn xadis mu ne xasful muhsanati maanaam fekk koo xam ne laalewu dara ca lañ koy tuumaal nga xas ko ca loola mu ne yëx dumu dafay màbbu amala mi ata sanna jëfub téeméeri at jaamu yàlla téeméer at ah, nga xas as gor goo xam ne la nga ko xasee dara nekku ci moom sa jaamu yàlla téeméer at kan moo fi dund téeméer at mu ne sa jaamu yàlla téeméer at yëpp la yàlla di màbb lépp lay màbb ñu ngi xaste rek mm-hmm. amoo ci benn preuve bu leer moo tax mais yàlla wax na ko ci alxuraan sax am na ñoo xamante nii mm-hmm. seen tiyaaba yi ak seen jaamu yàlla yow mal xiyaam fa ja'alnaa haba'an mansuura mm-hmm. pënd pënd rek lay doon seen julli yeeg oor yeeg ndax làmmin baaxul France xëddem hmm? am na ñoo xam ne ñu ngi leen di xas di leen tuumaal ci télé yi ci rajo yi ci daara yi ci koñ yi ñooñu jaratu ñuy jaamu yàlla gis nga seen julli juróom aj màkka jox ñu teg ñu teg écran bu mag ba waaw hmm. écran hmm. na ñoo xam ne ñu wanee parce que sorol nañu leen wax la wax di te am na nit yoo xam ne dañoo siiw dañ leen di xam mais bu ñu génnee rek am na bët bu ñu leen di xoolee parce que Sénégal gépp gëmandoo nañ ni mm-hmm. ñoo def lii wala ñoo waaw waaye yow man xiyaam bu leen borom bi setal ci kanamu ñëpp mm-hmm. dina bëri ñu rëppeel wallaay dina bëri ñu rëppeel parce que benn nit mooy jël rek alimenté benn wax wax ko siiwal ko ñëpp jot ci jël loolu nag def ko histoire taarix ba na ci taarixu Sénégal ñu nu sosol loo xam ne defuñu ko de ci taarix ba tey la mantu li nga wax ne xam ne lu ci neex aaya alquran da cee wàcc suratu nuur mm-hmm. inna alladina yuhibuna an tachia alfahishatu fi alladina amanu mm-hmm. lahum azabun alimun fi dunia wa fi l axira mm-hmm. nee na ñi nga xam ne dañuy bëgg xoolal ni yàlla waxee yàlla waxul ne ki gëm yàlla dafa def lu bon mais le fait que nga bëgg rek nga bëgg man man bëgg naa mantulaay def lu bon ba ma siiwal ko bëgg bi nga ko bëgg def ko ko de mais bëgg bi nga ko bëgg rek yàlla nee na mëgalu àddina mi ngi lay toog daal di créer ay créer ay def def préparé ko mais passe man yow nga def gasal kàmb pour nga def wala xool nga essayé yàlla ne bëgg yow mëgalu àdduna mi ngi la ci xaar ak alaxira te Pa Ousmane defugul yonte bi lu mu wax kafa bil mari isma an yox di sa bi kulli ma samiha jeex ah, ci nit ki bàkkaar lépp loo dégg rek wër di ko nettali te biir na ci dëkk bi nañ bàyyi xasta yi mantulaay mantulaay yàlla dafa teral doomu aadama wala xadd karam naa ba bani aadama mm-hmm. ay gor yu set wecc iñaan soxor wala nga bëgg dëgg te it mantulaay am na koo xam ne day bëgg dëgg ci sa kaw sosal la bëgg dëgg moo tax mu sosal la waaw bëri na bëgg dëgg képp moo tax mu sosal la am koo xam ne nag benn nopp la maxtaar bu ñëwee wax ko li ko maxtaar wax moom lay gëm looloo waral nag yàqkat yi di gën a bëri bu fekkoon ne yàqkat bu la wax dara ci mantulaay. Mm-hmm. yaa ko wax ah, alors wol ma mantulaay nga ñëw. déet foog ñu moytu loolu de. Mm-hmm. Mm-hmm. ñëw rek di di nettali ay mbiru euh, oustaz. nettali ay mbiru paa am na kenn ku ma mës ne. ba ma la miinee laa xam ne man kin ma décrire ak ki ma miin bokkul. <laughs> allahu akbar xoolal loolu. wallaahi lazim. mu ne ma ba ma la miinee. laa xam ne ñaari nit yu bokkul la. xoolal ma loolu. parce que tellement liñ ma décrire ak liñ ma wax. waaw bokkut ak nit ki may côtoyer. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. wala te koo nekkul mënoo xam. ba pare ñun tamit ñu ngi koy def ay nit. effectivement ñu ngi koy def ay nit ñu ngi bañ lu man par exemple mën naa ñëw. bañ lu nit ci kanamu oustaz. wala ci Pa Ousmane koo xam ne loolu du jikkoom. loolu parce que loolu dañ ma ko delloo rek. te amoo ci droit peut-être bañ naa ba taay nit. amoo ci droit. yaa Pa Ousmane maa ñu ñett ñi ay xarit Mm-hmm. yow bàyyi nga Pa Ousmane est-ce dafa tax ma war a bàyyi Pa Ousmane. Ah, bañ nga Pa Ousmane est danga sa bañ gi danga ma ko war a bañ la ma bañ la Pa loolu aw ma ci benn épreuve. yow li la Pa def ba tax nga bañ ko daf ma koy def ma door koo bañ. Mm-hmm. da ngay gis koo xamante ni jëkkër ak jabar la ñu teqale ko mais rakki jabar ji wala rakki jëkkër ji dañuy bañ kële. Mm-hmm. mais sequt ak yow dara. Mm-hmm. yow mbëggeel bi amoon sa diggante ak moom ba ñuy sëy moo waroon continuer ay bu ko topp waaye bul topp ne sama mag moo ko takkoon mais kii baaxul dafa nangam mais yaa ngi am mm-hmm. danger bu rëy sëy bi jeex na mais njëkk ba mën naa continuer xaritoo mën naa continuer mm. mais déedéet bu continuer ñaan sax moo ko tas wala daf ñoo bañ moo tax te bëgg yow bako banaa ko du yoon. mooy coalition yi ci biir kër yi bako banaa ko. bàyyi ko bàyyi naa ko nañu ànd jàppalante nañu ànd jàppale diw nañu ànd nangam dafa bëri ci. ci kër ya wala bañee wala wala bañee. bilaay gis nga couple bu leen yàlla boolee bañ teqalikoo surtout nag. Mm-hmm. avant ñuy teqalikoo procédure boobu ñuy teg di waxtaan. Mm-hmm. bul bëgg dëgg ci sa kaw jabar ba tax nga sosol ko. Mm-hmm. yow jabar ji bul bëgg dëgg ci sa kaw jëkkër ba tax nga sosol ko. pour am dëgg c'est-à-dire loolu dafa bëri léegi lu yemul rek ci ay fem de ménage ah, mais dafa dem ba ci suñu vie de couple da ci am mag ak rakk leegoo léeg ñu jotee rakk bëgg dëgg ci kaw magam ba tax mu sosol ko mag bëgg dëgg ci kaw rakkam ba tax mu sosol ko léegi nag sos boobu nag ak tuumaal boobu noonu noonu li muy yàqu ci suñuy jaamu yàlla laa wax sànq ne dafa ëpp te loolu benn dëgg jaru ko. xam nga téeméeri dégg naa benn maa fekk ko man kii xam na sëñ Assane salaam bu Ndiaye. xam naa ko sëñ Assane nitu yàlla bu mag bi. mais na ko wax benn benn benn ponkal. ko xam na di jaamu yàlla rek lay def yàlla rek. mu ne ko yow dee tee dem euh, euh, safara. Mhm. dee moo la tee dem safara la. ami taali bi yëpp mu ko lu xew. mu ne ko bés sàngam da ngaa xulóog sa benn soxna jiñ ko ne nitu guddi la. dañ koy tooñ. tàqal koo ngi. waaw loolu mi ngi dox ba tey. demal ca koñ ba nga yuuxu ba ñëpp dégg la nga rëppale ci suuf daal di ràmm wuti ko jéggalu ko. jéggalu sa soxna. jéggalu soxna si te baaxante ngeen bu yàgg. Mm-hmm. wax tuumaal nit bala nga xam ne rayoo nit. xaar ba yàlla ëñ rido yi. Ah. yëkkati lépp mu leer nañ ñi nga xam ne rayoo nit. kàddu yi day rey de. moo tax mag ñi ba mag ñi ñoo muus. <laughs> wallaahi di koy tooñ ñu ne la bul bokk ci ña koy tooñ. na tuumaal nañ fi as góor wax nañ fi lu bon ba doon ñu. lu ne ba tey te mënoo